alalu askan bi kenn du bind ci programme am boon ma falee ma jël ay nit emprisonné leen parce que tout simplement dañuy def loo xamante ni ànduma ci wala dañ ma nar a yàqal li nga xamante ni mooy sama sama sama nguur mhm. le plus souvent li ñuy def ci ay mauvaises pratique day wuuteeg ak li nga xamante ni mooy mooy li ñuy diggoon askan bi te aussi yaakaar naa wolof moo koy wax ju jukkoy wutkat du jukko mhm. bu ñu ñëwee di wut lu bon dañ koy xaraamal lu baax dañ koy daganal mais nag bu ñu xasee ba am dootuñu xàmmeete lu baax ak lu bon. Mhm. moo tax gis nga programme dëgg la bu nekkoon ci peut-être ñoo xamante ni ñu ñu ñu ñu set nañu diggante par exemple ñu ni euh, Bassirou Diomaye mooy candidat wu PDS Ousmane Sonko mooy candidat wu PASTEF. ci ñoom ñaar mhm. kan moo ci gën a baax le programme boobaa vision nañuy xool mhm. mais bu nekkee koo xamante ni ku set la ku tilim ak koo xamante ni si tilimul setul mais boobu choix bi du sax du sax du sax du sax du sax euh, kenn du discuter choix parce que choix bi déjà nit ñi dañ koy xam. Mhm. parce que nit ñi dañu yamul en fait comme yamuñu nag programme bi dañ koy teg ci suuf xool déjà nit ki kan la parce que li gis nga li li li li li Georges Nessa wax te mooy dëgg bu ñu nax sénégalais yi programme yi ay comité scientifique ñoo koy bind ak ay experts en communication xool li nga xamante ni mooy populisme li gën a jege ci xolu askan bi ñu ni leen. courant bi dafa seer moo faloo dinaa ko wàññi dund bi dafa seer moo faloo dinaa ko wàññi inondation ngeen di kaas boobu ba tey moo faloo doot fi amati lii di seen i jafe-jafe wàllum sante éducation yeneen ak yeneen point yi nga xamante ni sénégalais boo koy wax mu ibbi ay noppam xippi ay gëtam di la déglu point yooyu dañ lay fexe ba wax la loo xamante ni da lay convaincre mais est kooku di ko wax di ko bind ci bi boobu la téere est kooku dina ko appliquer loolu mooy problème bi parce que dañu nekk ci dëkk boo xamante vraiment Pa Makhtar tey mën na xëy suba dem woow ji Pa Assane woo Georges Nessa woo Aw Diop Ndiaye yéen ñett ñi boo tëjoo ci néeg di ma bind programme boo xamante fu ma ko liiree ñu ni gong mais est-ce jub na mm. est bu dañuy soppeeku balaa ngay naan programme ni wal attention kii kan la. Mhm. kii démb bañ ko dénkee. bu nekkee mos nañ ko dénk nan la doon doxalee kii ba mu nekkee à l'épreuve lan moo nekkoon ay principe am kii nii am na benn jamono yoo xamante ni wala am na jamono yoo xamante ni liggéey na ko lan moo nekk productivité nga xool ni ah attention Georges saa mii di woote nan dañ day développer Sénégal est-ce que mos na développer quartier am est-ce que ci liggéeyam. wane na xarañte boo xamante ni mën nañ am njoxtu bu rafet ci moom. ak probité morale. effectivement est-ce que Georges Nesta moom dañ doon wax ni kii dañ koy ger di ko muy jaayee émission wala dañ koy dafa nekk koo xamante ni ñëpp nangu nañ kenn mënu koo ger. Mhm. mais loolu noonu bu xasee ba am. ñeneen ñi amuñu ko mooy que moom am na déjà avancé te loolu nan moo am ci élection yi mooy que am na ci candidat yi kenn koo xamante ne nit ñi njoxtu nañu am nañu yaakaar que ni du kii lekk alalu askan bi du koo xamante ni il est immensément riche. du koo xamante ni aussi ay besoins existentiels dafa nekk ci dafa nekk ci moom Bassirou Diomaye fay wax ma ban combat dañ ko mës a tuddee. wax ma Bassirou Diomaye fay ban waykat moo woy ba si yàgg ni da koy tudd tudd ay jabaram. xam nga loolu amul léegi nga xam ne kon kii dañuy jàpp ni kii ku nay la. te pourtant nayul parce que alalam la yor ku yor sa alal boo liggéey ñàkk ko doo ko fawee. mais à côté nag bu amee benn Pa Makhtar Diallo boo xamante ni ñaari waykat yu ne way nañ ko. Pape Makhtar Diallo boo xamante ni dimanche bi ne ñu tuddee ko combat. nga xam ni kii nii alalam de war koo mën a am ci liggéey kase parce que bu nekkoon liggéey kase moom ñëpp a yem kon peut-être jaar na fenn foo xamante ne jaar fa donc Basir dafay dafay dafay dafay daf daf daf koy jiite ci avance. Mhm. donc moo tax ma ni programme kenn du ko mës a ñàkkal fayda. mais dafa nekk ci réew boo xamante ni balaa ñuy naan programme dañuy naan nit ki parce que lan nañuy wax rendez-vous d'un homme. avec son peuple avec son peuple boo génnee Sénégal America first la la la Donald Trump falo America first America first. yoon yoonam newu ci programme. Mhm. taxaw fu mu taxaw ni leen America first intérêt américain ak américains yi laay doxal. Mhm. entreprise yi daanu dinaa leen ñig gars yi ni ko nan mu ne seen yoon new ci dinaa ko def. noonu la def ba falu te gis nga li li li George Nesta wax moo am fépp ci àdduna bi am na ñoo xamante ne bu ñuy dee sax nationaliste nañuy doon ba ba ñuy dee. Mhm. front national nañuy voté loolu mën di tudd nag front national loo ko mën di tuddee ñoom mën nañuy voté seen yoon mais Sénégal idéologie boobu doxu fi. waaw Sénégal xaalis la ñuy xeeñtu. mais waaw waaw mais ba tey si subjectivité la xam nga tey jii bu nekkee da ngay voté te xooloo ci benn objectivité xooloo ni que kii de moom moo gën ci candidat yi. parce que bu nekk objectivité da ngay xool ni kii de bu ñuy xayma kii moo ci tane mais nga ni non damay jël parce que damay xool benn mbir boo xam ne bu subjectif la soit xaalis la par intérêt wala soit appartenance la wala soit dafa am lenn loo xamante ne mën nañ ko jege yàndoo léegi loolu subjectivité boobu moo am Sénégal moo am États-Unis moo am France moo am feneen ak feneen ak feneen daa am ñoo xamante ni ba ba ñuy dee démocrate nañuy doon. Mhm. candidat lu mu baax baax baax lijjantiwuñu ko ñoom démocrate nañuy démocrate nañuy voté démocrate nañuy voté seen yoon newu ci. comme mu amee France ak feneen fii aussi au Sénégal di nga dégg kenn ku ni la kii sama taalibe la sama man moom ma bokk sëriñ. sama sama sama sama sama sama euh, voilà ñoo bokk sëriñ donc damay fexe ba ndamam doon sama ndam. waaw moo tax ma ne la fii Sénégal. idéologie doxu effectivement mooy même ba tey day nekk dans la subjectivité. Euh, am na ñenn ñoo xamante dañuy naan ah ñoom ñëpp a yam ku ma jox 5000 ma ko moo tax nag gis nga candidat yi am xel yi di jël seen photo di ko dugal ci kër yi parce que am na ñenn ñoo xamante dañoo indécise amaguñu décision bu ñu demee ba ci bañ gàcce yi lu ñuy def mooy xool ki ñu gën a miin. parce que gis nga image bu koy gis di ko gis di ko gis day dem ba day créer benn familiarité. boo taxawee ci bañ gàcce bi da ngay xool cinq personnes wala cinq fiches doo ci xàmme kenn kenn ki nga ciy xàmme que yoroon nga fiche am sa kër. boo moytu kooku ngay jël nang dugal ko ci dugal ko ci bañ gàcce bi moo tax le plus souvent da ngay gis yenn village reculé duñ fa yóbbu programme de photo bi nañuy yóbbu nga koy xool di ko gis di ko xool di ko gis di ko xool di ko gis ba xàmme ko ba ëllëg nag boo demee ba am problème mu nga taxaw di naan noonu kii laa wax a jël wala kii laa wax a jël ki nga xamante ni mooy parce que loolu réflexe la ki gën a ñëw si sa kalam mooy ki nga xamante ni moom nga yàgg di gis te boobu day mel dafay am benn lien boo xamante ni day nekk seen digga da ngay jàpp ni kii sa mbokk la da ngay jël rek voté moo tax vote bëri na ñuy naan objectivité objectivité mais subjectivité moo ci gën a bëri mhm. moo ci gën a gën a gën a bëri pour daane daal vraiment man je pense que ni programme am na solo kenn du ci werante mais sénégalais yi fi ñu toll dañuy xool kan moo jiite programme bi ndëgam Awa Diop Ndiaye la wala Pape la bu nekkee Pape Makhtar bi nga xamante ne tappale kese la nekkee Pape Makhtar ba bu la nuyee boo leen ma falee damay jubal ay waxi caaxaan képp la jukoy wut kat la du jukko <laughs> balaa mu nga koy xam nga am mais Pa Assane euh, tey jii donc euh, à quoi bon euh, faire une campagne électorale tey jii bu fekkee ne ñun campagne électorale Sénégal li ñu koy méngale mooy Mumbai. c'est culturel au Sénégal tout se ci rythmique fecc la. tëgg ak la ca des euh, dëkk la boo xam ni culturellement sociologiquement il y a deux choses qui nous embrigadent moo di commérage wax ju bare wax lu suñu yoon newul lu ñu dégg lu ñu déggul lu ñu fekkee lu ñu fekkewul ak li nga xam ne moo di po mhm. lu sax la si léegi nag cette donne là euh, li kaa changé du dara lu dul une rupture drastique bu sincère mhm. loolu nag ay nit danu kaa incarné tey Sénégal dafa toll ci tendance boo xam ne dañu soxla <coughs> leader un leader wala boo ko ne le leader ki nga xam ni day day day day mel ni Deng Xiao Deng Xiaoping ca Chine. wala hmm. Mao Mao Zedong nekk koo xam day ñëw rek changer affaire yi c'est important. ah c'est ce dont le Sénégal a besoin en ce moment. c'est c'est c'est capital. Ah la bonne personne. lu tax sànq ma may insister ma naan la hey nanu libéré jomaay mi mu wax mu dégg parce que dañ ma ne jomaay mooy Sonko man ma ne jomaay du Sonko Ousmane Sonko moo la Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye moo la Bassirou Diomaye Faye léegi il faut que Diomaye Faye xoolil au-delà de la croyance par rapport à ce projet au-delà de millions de Sénégalais qui croient en ce projet que man mu leer ma ni moo kii ñoo nuroo mais pourtant Ousmane wax na ma ko nee na ma man ni ma mel waa ji moo ma raw. moo ma gën léegi nag pour ma gëm ne moo ko raw faw waa ji génn jàkkaarlook man xulil ma am sensation bi au-delà de la sensibilité ma yëkk ma déglu ko je parle de moi ma déglu ko ma ne ah d'accord je comprends maintenant parce que on parle de Ousmane ko nit ñi Ousmane la ñu bëgg de delà Ousmane fu ne nii waa ay taxaw ca angulu fële. nekk koo xam ne daal kenn xamu ko moom bu tuddee sax usmaan Sonko ne man damaa bëgg Sonko moom nit ñi dañ koy bëggaale. Mhm. loolu barke la. léegi nag mois ce que je suis de dire c'est quoi moo di ne waaw léegi kon fi ñuy waxee Ousmane est-ce que Diomaye sax gënul Ousmane dix milliards de fois mais leeru ma xam nga comprendre nga. donc foog ma ma jëflante ak moom. moo tax ma ne la cette campagne il est importante parce que ci même bu dee une semaine. il est important que Bassirou wax ak sénégalais yi un futur président doit parler à ñi nga xam ne ñoom lay jiite Mandela les sud-africains dañ ko xamoon c'est différent tey bu Ousmane Sonko doon génn tey jubal pale ba on ne rechigne pas on dit ok mais mën naa nag nekk un partisan ne man je réfléchis pas foofu la affaire bi nekk le partisan il réfléchit pas le vote affectif dont il parle il calcule pas diw moo ma neex am na ñoo xam ne nit da leen di voter parce que xaritam la mooy li ma la wax sànq. kii xaritam la ki seen mbokk la kii ñoo bokk li le président Macky Sall à un moment donné le vote c'était quoi mm -hmm. c'était pas dans le contenu ou quoi que sanu mbokk la mhm. point baax mhm. aujourd'hui nag man li ma ñaan ma boroom te gëm ko yàlla nañ leen libéré ci guddi gi Ousmane Sonko ak Diomaye ba pare loolu day neexal campagne bi ndiiraanu Bassirou Diomaye ak Ousmane seen ndiiraan rek riir loolu moo tax yeneen candidats yi bu ñu ingénieur nii kenn du leen dégg dama lay wax lu mel ni midi bu bu candidat bu ci muusul kenn du la dikk parce que riir bi am doole ñaar ñee bu ñu génnee ci campagne riir jaar nii. Mhm. ingéniosité dong xulil 19 candidats yi laay waxal 18 candidats yi parce que kenn ki kële la 18 candidats yi ku ci muusul. Ah, kenn ki lan la. kenn ki mooy ki kii riir bi topp. Diomaye le riir bi ah. topp coow li Diomaye la. ok les autres tey l' avantage de Diomaye il est de 75 pour cent ci bruitage. ak ci nit ñi jóg bugg ko jàppale. Mm-hmm. léegi nag may wax ne yeneen candidat yi seen xel ku ci ñëw xel lool ba ne nekk génie saay boo xefee kenn du la dégg. parce que pour nu déglu sax day doon problème. d' accord euh, dañuy ñëw ci li ñu doon wax léegi moom moo di ne. Euh, <coughs> on a vu des waa ñëwal avant ñuy ñëw ci euh, les coalitions balèzes. oui balaa ñuy def coalition balèze xam nga damay ajouter benn affaire si. Euh, campagne électorale. Mm-hmm. Euh, en tout cas surtout les programmes xam nga programme yi euh, biñ koy concevoir euh, bi candidat bi commencé di wër dëkk bi di wër Sénégal mhm. day teg programme bi fële bu demee par exemple suma dëkk